programme bu mucc ayib bi sénégalais yi daanu ko tànn ngoonuk ñaar fukki fan ak juróom weeru février atum 2024 boobale programme docteur Abdourahmane Diouf dikk na ci pàcc gi mu jagleel wàllu koom-koom ne ci woowale wàll secteur privé bi laajtey gën a jox bopp ndax koom-koomu réew mi ñoo ñaa ko war a yor ba muy jàngat ni Macky Sall yoree Sénégal docteur Abdourahmane Diouf taxaw na itam ci wàllu démocratie gis ne dan caa dellu ginnaaw bu baax a baax firnde gi bokk na ci ñun tegee loxo Ousmane Sonko ak yeneen i doomi Sénégal yum jàpp ni defu nu dara Abdoulaye Daouda Diallo moom la mu mujjee mooy topp ci ginnaaw Amadou Ba waaye topp googa tey na xelu réew mi quotidien mi xëy yeggeenu ko yéenekaay bi dinu nettali ne samedi ba muy yëkkati kàddu ca conseil économique social et environnemental discours ba la muy gudd gudd tudd ca benn yoon Amadou Ba l'info itam def na booba taxaw seetlu ne Abdoulaye Daouda Diallo nee na waaw Macky sàll waaye amadu Ba moom tudd ko taasu ko le quotidien yéenekaay yu ma jambal jaañ bi dëggal ko ne ko kàddu yëm yëkkate la muy bari bari Amadou Ba moom kenn déggu ko ca Walf Quotidien ne da ko snobé Abdoulaye Daouda Diallo tuddut benn yoon Amadou Ba loola nag direct news la mu ca gis mooy Abdoulaye Daouda Diallo jàppaleem gi mooy wax dëgguwut te it na mu doxalee di wax ba daaneel te tudd ci Amadou Ba jekkut jaaduwut source aane ko kon yow loola doo nga yëg Abdoulaye Daouda Diallo de yemut dong ci bañ a tudd amadu Ba ba mu koy akolaat sax dafa lànk moom njiital conseil économique social et environnemental dolli ca nag mel ni kuy gaaruwaale ndax wax na fa ne li waral mu teg ci suuf candidature am bi du lenn lu dul wone valeur di jikko yi rafet yi apériste authentique yi làmboo maanaam ñi nga xam ne ñoo sos parti bi di alliance pour la république rax na ca dolli itam ne la waral mu sampoon ndëndam mooy dafa jàpp ne kenn gënu koo jekk kenn itam gënu koo yay ci doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar wala APR ci élection présidentielle bi source aane lii ak leneen la fa Abdoulaye Daouda Diallo wax waaye la wax jay bari bari bari kenn déggu ci Amadou Ba professeur Moussa Diaw miy jàngale politique ci université Gaston Berger bu Ndar nee na lu ko yéem lay doon Abdoulaye Daouda Diallo di dajalay mbooloo ngir Amadou Ba maanaam jàppale gi Abdoulaye Daouda Diallo di woote ci Amadou Ba dese naa doon Moussa jaw waaye lii dëgg daal Sud Quotidien ne na mooy Abdoulaye Daouda Diallo wéer na ngànnaay yi génn na ci candidature ba mu ngànkoon jëm ci élection présidentielle waral enquête naan Benno Bokk Yaakaar kay mucc na ci tasaaroo gin ko doon yaakaaral ndax parti socialiste man yaakaaroon ni leneen lay def sax mujjee naa jël dogalu topp ci ginnaaw Amadou Ba wuuteeg Cheikh Tidiane gaajo mi du mooyu Sud Quotidien ne ko des na itam ñeneen ña du mooyu woon di Aly Ngouille Ndiaye Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak Mame Boye Diao Mame Boye Diao mooma sax Macky Sall dalal na ko samedi ji buñ sukkandikoo ci l'observateur yéen kaay wi ne waxtaan wi diggante njiitu réew meek maire bu Kolda Mermoz la amee booba jamono ca Touba Serigne Mountakha ma ngay dalal Mouhamad Boun Abdallah Dionne Boun Abdallah mooma dana yëgle candidature am du yàgg dara buñ sukkandikoo ci bis bi le jour mi ñu yeggee ngërëmu Amadou Ba ci Abdoulaye Daouda Diallo Les Échos ne Amadou Ba yemul dong ci gërëm Abdoulaye Daouda Diallo dig na ko itam ne bu nu àndee gagné ñooy ànd liggéey Ousmane Sonko moom booba jamono ma ngay liggéey ci parrainage bi source a dinu yeggee li njiital Pastef nar te mooy wut parrainage citoyen ndax amul xeet xel ñaar ci askan week ni nu ko bëggee waaye Sonko ñaari cin la nar a teg ndax meerab si gicoor bi bu sàkkoo ci askan wi ñu parrainé ko ba nuppi dafay sàkku ci fukki député ak ñett ci ñaar fukk ak juróom yi mu am ñu parrainé Bassirou Diomaye Faye ñu des ak Sonko càkkute fu awakaam yi ci rëkket yenu yóbbu ca cour de justice bu CEDEAO libération ne nu càkkute fi bokk na ci ñu bàyyi Ousmane Sonko may ko itam mu bokk ci élection présidentielle bi nu dëkmal delloo ko alalam te àttewaat ko ci mbiram Sweet Beauté ñaawlu nanu ca yooyu li rëkket ni jàpp ni teguwut fenn kay mooy ni nuy bundu xataale Malick Gakou mi ne ci tournée ci biir réew mi buñ sukkandikoo ci libération yoor yoor bi nañu yewwi kay ci mbiram Malick Gakou gi li muy ragal mooy mu mujjee ni mbirab Ousmane Sonko ñu des ci bileb yéene kaay mi ñuy xamal ne président Macky Sall ndawi Sonko yaak farandoom ya dañu kaay yuuxoo ca New York ga mu dem ngir teewee juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetteelu session assemblée générale bu Nations Unies di mbootaayu xeet yi yuuxoo yu metti ak na ko gaa ya karee moo waral réservation hôtelam ba sax dakaa mujjee président Macky da koo fomm wuti feneen libération mel ni ku naan ñu ca woowale waxtu ndawi réew mi ñoom génnuñu ci seeti leneen feneen ndax Barça wala Barsaq gaa ngi wéy di toj réew mi ca ndar géej njeextalu ay bés bi am na ñu ñu fa wàññi ñu waroon gaal wutali bitim réew kaleen waroon yóbbu yi teg nanu ko loxo libération yëgal ñu itam ne juróomi nit yu bokk benn njaboot teg nanu leen loxo ca kër gu ne ca boori lycée Maurice de la yaa fa wàcc gannaaw ban leen yëgalee ni ay cocktail molotov danoo nekk ca woowale bërëb feneen ñaar téeméeri jàngalekat ak lu ëpp jóge nañu fa te wuutuwun leen wal Walf Quotidien mooy artoon yi ci jàngalekat yi doyut te moo ne école daanaka ubbi na Sadio maane moom ub na làmb ja ca Al Nasr juróom benn biit la dugal ci juróom benn mat réew mi Quotidien ne saajo daal jongante wun tëgg rek faaw mu yëngal caax yi stade ne ko moo waral Saudi Pro League ma ngay yëngu yéenekaay bi ne saajo maane ma ngay toj Arabie Saoudite sunu làmb ne fi toj dëgg kay mooy Gàmbi Modou Lo ak Ama seen janoo ba tàng jër la def daa mujjee